maaleykum mbokki réew mi asalaamaaleykum mbokki mbuur asalaamaaleykum mbokki Malicounda euh, tey jii yàlla dafa def ñu daje fii di waajal gala bi nga xam ni moom la ñu war a def pour le maire de Malicounda DG du COUD monsieur Maguette Sène ñu war koo def bu ci yàlla àndee dimanche le 8 janvier fële ci Mbaling mu doon bis boo xam ni bis bu mag lay doon

ñu ñëwoon pour mën a jël ñaari mbër yi ci CDG bi acté ko pour wane ni ñii kat lépp luy sur le plan financier sur le plan administratif lépp loo xam ne waroon na ci bis bi def nañu ko en attendant ñuy def face à face bu mag bi nga xam ni mooy la grande signature devant l'ensemble des lutteurs yi nga xam ni ñoo war a bëri ci bis boobu muy ñëpp bu boobaa ñooy daje. léegi nag ñuy wax mbër yi daal ni bis boobu yàlla nañ ci yàlla yóbbu ci jàmm. ñu fekk ko ci jàmm bëre ko ci jàmm ñu ngi koy bëre nag ci dëkk bi ñuy wax Mbaling ñu war koo bëre le 8 janvier 2023 bi ci yàlla àndee ci jàmm ak salaam kon nag monsieur le président Chérif donc kaddu gaangoo soo paree ñu jox mbër yi ñoom it ku ci nekk sànni ci say kaddu ñuy gërëm ñi nga xam ni ñoom ñooy aussi kilifay mbër yi parce que bi nga xamee ne waxtaan nañu ak ñoom lépp dañ ko teg ci yoon te ñoom ay professionnels bi ñu ñëwee Aziz moom mi nga xam ni ku nekk xam na ni lépp lu jëm fii tey jii ci wàllu management presque mën naa ni ci loxoom la ne mais yàlla def na aussi agir na en professionnel ba yàggaluñu fi yàgguñu fi fële ci Thiès aussi 12 7 war fa woon a jógee ñëw fii mu représenté wu par Pambay loolu aussi yaakaar naa ni lépp jaar na ci yoon kon nag may profité ci occasion bi di leen gërëm di leen sant mais sërëm surtout di gërëm nag suñu jigéen aussi vraiment la yoon muy koo xam ni liggéey bu am solo lay def ci wàllu làmb ci wàllu sport dans un cadre général vraiment di gërëm ñoom Modou Fall di gërëm bépp télévision boo xam ne tey nekkoon nga fi te di leen di wax daal suupa fii ak fan yu néew dinañ def face à face bi fii ci ci mbaling lañ koy defee bu boobaa donc ñoo ngi gërëm parrain bi bu baax a baax monsieur Maguette Sène ci vraiment li nga xam ni defal nañu ko pour wan ñungul ñu pour ñu ñëw def si foofu làmb joo xam ni moom mooy doon parrain bi ñu koy gërëm di ko sant nit ku baax la di gërëm képp koo xam ni tey jii rek euh, yaa ngi nekk ci wetam aussi te di ko jàppale guddi ak bëccëg suba ak ngoon keroog bi fa ñëwee rek teraanga ju mat sëkk nit ñi defal nañ ma ko teeru ma noo xam ne kontaan na tam monsieur Chérif maa ngi lay gërëm di gërëm tamit ñi nga xam ne ñoo nekk ci CDG Mbour bi yëpp donc di gërëm aussi bu jàll mi nga xam ne sur le plan régional moom moo fi nekk euh, vraiment di ko di di leen sant bu baax mais surtout di nuyu suñu xarit aussi Maysa Ndiaye moom mi nga xam ni lépp lu jëm ci wàllu bëre dóor bi sur le plan national aussi moo ko yor muy koo xam ni tamit suñu xarit la yàgg ñoo jàppale ci làmb ji

donc mais sinon da doon ñëw toog fi kon Iba Samb vraiment maa ngi lay gërëm tey woo waa Malicounda waa Mbour wa Sénégal parce que combat bi ko gis xamni combat bu maga a mag la jërëjëf. Ah, merci merci Sidi. rek di sant yalla di jul ci Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ah di le remercier bu baax parce que département de Mbour xam nañ kan moy Sidi Diakhaté même bu sa làmb passé fii. toujours jot dañuy interpeller di ñu laaj kañ la fi si di tëggaat kon yaakaar naa ni euh, mbuur jig na la waaye tamit mbuur am nañ la njukkal vraiment ndaxte bàyyiwuloo làmbi mbuur aussi mu nax saay euh, loolu vraiment ñu ñu ngi la ciy remercier sa taxawaay ci mbuur parce que saa boo tëggee Cees rek sa xel fi mu jëkk nekk bala ngaa génn dem fenn mbuur ngay xalaat kon loolu ñu ngi la ci gërëm di la sant di la ñaanal yàlla tamit vraiment yàlla jàppale la bés def ñu fekk ko te tal ko may ñu wér fekke ak tal eh, ñu duggee ci bisimilah rahmaani rahiim génn ci alhamdulilah rabbil alamin li ki des nag wax nga ko léegi moo di di gërëm le DG euh, Maguette Sène vraiment moom tamit département bi am nañ ko njukkal suñu maire yi nekk département bi vraiment Cheikh Issa yàgg nga fi tëgg drapeau am alors euh, ñoom ñëpp ñu jàpp ci sa bés. di waa noonu tamit la ñuy euh, jàppale waa Mbour ci lépp loo xamante ni activité la jëm ci làmb kon ñoom tamit ñu ngi leen di di di sant vraiment suñu autorité yi li ki des mooy ñaari mbër yi euh, bés ni ki tey yéen a ngi ci contrat ngeen xam ni yéen ngi ci contrat contrat jàmbur nag boo ci nekkee da nga koy respecté parce que li tax ñu téye seen ay licence c'est parce que amatu leen droit def beneen activité boo xamante ni bi tant que seen contrat euh, bi ngeen seq diggante ak di jaxate matul amatu leen droit ngeen di dugg ci yenn façon làmb parce que làmb ji dem dana fekk seen contrat mi ngi fii kooku tam dañ koy wax pour mu leer bés ba nag yàlla na ci yàlla yóbbu jàmm ngeen góorgóorlu bëri ko ci jàmm ñaari doomi mbuur la jël te seetlu nañu si di saa buy tëgg département de Mbour day seet doomu mbuur yi nga xam ne ñu ngi def ñu ngi nekk en activité yëpp mu jéem leen fexe dugal leen par exemple ku ci nekk gis ci boppam loolu nag promoteur daan nañ jëli fu nekk ay mbër dikk tëgg ci làmb ci ci ab dëkk mais Sidi day préféré doomi mbuur yi mu fexe ñoom toujours ñu gis seen bopp ci bésu Sidi Jaxate defaat na ko tey tamit ñoom ñaar yëpp ñaar doomi mbuur lañu kii mi ngi nekk écurie Bombardier kii mi ngi nekk écurie assurance kon xam nga ni loolu moom vraiment lu lu ñu rafetlu la kon nag ñu ngi lay gërëm di la sant di gërëm itam sa staff vraiment di gërëm président Abibou Diallo comme ni nga ko waxee mooy suñu président régional. di gërëm Maysa Ndiaye moom tamit euh, ci suba sax laa ko informé ni ko nag euh, affaire bi dañ ko bëgg a rek pour def ko nii rek après mais incha allahu bés bu ñëwee ñoom ñi nga ñu wax kilifa yi yëpp ngànk làmb dinañu incha allah ci bésu signature bi waaw loolu lañ luñ ci wax vraiment di la gërëm di la sant di wax yàlla yàlla nañ yàlla may ñu fekk ko tatal ko jërëjëf merci léegi dafay am ñaari question wala Modou ah njëw moom mooy jëm ci mbëri waaw aja ci kan ah. nga son acca dañ ni foofu rek doom delloo fa sa loxo. Père Sidi nag yàgg naa ñëw Mbour di ñu sagal euh, ndax nee naa la gis ngeen journée yi muy def yàlla def tey jii boo xoolee tey mooy nekk ñaata journée am troisième wala quatrième journée am chaque année mu ñëw mbuur tëgg fii combat mais dafa tëgg komba boo xam ne. bi ma tons pambay woowee léegi dama ne ko dangaa luqatib lanc loo xam ne mu nekk ñaari jeunes yoo xam ne nii si biir Petite Côte kenn ku nekk doon naa table li nga xam ne moom nga des si la am ñoom ñëpp dama naan ikiri Bombardier mooy ikiri bi njëkk si biir mbuur tey kii ikiri bi mu nekk ikiri euh, Bombardier la génnee muy ikiri Bouba assurance Papa Ndiaye onkong nag daal di dafa dem Thiès pour liggéey mais doomu mbuur la tey nga boole leen ñu nekk ñaari xale yoo xam ne ay bërikat lañ nekk ay ndaanaan kenn ku ne doo wax Papa Ndiaye Ong Kong te kenn du tudd naat ndaanaanam ci làmb Robert Ndiaye numéro 2 bi nekk suñu ginnaaw barki Dembo Ndiaye ñoo nekk Mbul Jàmme mu def fa faux effort bëri fa 4 combat ba cinquième combat muy doog a daanu Euh, mu keroog gis nañ li mu def tamit fi nga xam mooy Joal làmb ñaari fan nga ràññee ko si 64 litres ba jël làmb ji jël say nag ñibbi si kooku ndaanaan la dem na fi Espagne ñëwaat mais terewul xam na li nekk ci moom ak capacité yi nekk ci moom kii muy dajal tamit nekk ndaanaan kon tey li wax rek man bu may wax si combat ma naan 50 50 ndax bu dee si taay ndax damay bëgg combat boo xam ne dañoo même taille la même même faveur lañuy doon même même stratégie te ñoom ñaar dañoo bu nekk ñoo xam ne kenn ku nekk da ngay jël tànk nekk yoo xam dañuy bëri si tànk kii day jël tànk te boo laalee ay tànkam mu def si lu bëree bëri kii tamit nekk na koo xam ne boo jëlee ay tànkam gis nañ ay combat yi nga xam moom la bëri Thiès ay top 5 la doon dalay mboot ba jéggi sa biir euh, toog sa biir ni xew di la xool Robert Ndiaye jël ko tànk la kii day mboot loolu le 8 janvier lay leer mais da nga tuddee tamit koo xam ne démb rek gars yi dañ doon def réunion muy maire yi nga xam ne ñoo nekk nekk si département de Mbour di ko defee fii nga xam mooy Kokobis mais mairie si département de Mbour yëpp kenn ku nekk da ngaa jël kàddu gërëm ko muy DG Koudou muy ki nga xam mooy monsieur le maire Maguette Sène le meilleur maire du Sénégal lañ wax te ci en des jeunes muy mbër muy femmes yi nga xam ne ñoo nekk si dëkk bi muy xale yu jigéen yi nga xam ne ñoo nekk si nga gis xale yu jigéen yoo xam ne ay carax lañ laan sol démb boo leen gisee si réunion bi nga xam ne ñii changé nañ ay xale yu jigéen yu ndaw yoruñu doom yoruñu jëkkër nga leen say fay chaque weer trois cent mille jël ay xale yu góor di leen fay ku si gën a néew salaire cent soixante-quinze mille kooku jàmbaar la kon tey boo defee lii bu yóbbu ko mbaliñ sa buntu këram delloo ko njukkal la ñu naan la gàcce ngaalaamaa yow mais moom tam ñu ngi koy jaajëfal si li nga xam ne moom la jël bis bi waaye tamit du ñu def lu dul rek bàyyi Robert Ndiaye comme que moo féete mooy dalal ki nga xam mooy Papa Ndiaye Ankong donte la mais Thiès mooy <laughs> a gaaw boo yeexee rek doo gis jël mu lan day wax ki nga xam ni mooy Papa Ndiaye Ankong Ndiaye ñu ngi lay ziar. Eh, doo la ziar ndax leen di bëggee di leen di sant sama papa yi fi nekk di leen gërëm ku si nekk maa ngi lay jox sa wàcc waay naa xam ne dajale ay nit tamit yombul ko waaw te fekkee boo gis tamit cër di sant ñu si mel ne ñoom Iba Ndiaye ñoom Palmante di sant sama ñaay waajur di sant Aziz tamit kenn amul fayam nit koo xamante ne day jàppale day jàppale mbër la sax laa wax mooy bëre ba dóor ba tey mu ngi sama kanam mu ngi sama ginnaaw comme man bii signé combat du ma si am leneen lu may wax moom bu doon signé combat te nekkuma fa sax ba jur bëri jot damay ñëw rek bëri da parce que moom dina ma la ëpp loolu noonu di sant suñu père Sidi Diakhatal bu baax nit gën ko si ñun da parce que mu ñëw ba si petit côte bi di tëgg ay combat sama adversaire moom maa ngi koy ñaanal wér ak guddi fan ba jour combat ba ndax aussi ku xam Rabel Ndiaye xam ni champion la xam ni ndaanaanu lépp la mais xam nga bis boobu moom bis la si bis yi man bis bu ñëw rek moom laay gën a réel samay bis samay bis nag benn tuuti si mais bis ñëw rek moom laay gën a réel samay bis ma toog nag di wax lu may def man média yeeg ñëpp ñooy wax lu may def di wane lu may def doo bëggee ñu gëm moom da ngay def ñu gis n'est-ce pas te aussi saabu du fóot boppam Robert Ndiaye moom ku ko xam si am jom woo xamee bari mooy sama métier man bari laa gëm gëwuma leen luy bëri bëgg naa duñ demee bay tàggi sama dëj na si digg làmb ndax parce que man làmb laa xam dem naa fi Espagne ñibbi lan làmb rek laa xam comme man làmb ju mënta doon dama koy jox cër bu moom moom aussi tamit di fonk ñëpp nag di gërëm ñëpp ndax parce que nag lii yombul ko waa wax moo waral loolu ndax xam naa ko laaj ko ndax moom xam si man ndax xam na ma man dese naa koo de ndax man xam na ma waaw. non xeebu ma ko sax man du ma xeeb mbër chaque jour man damay taxawal sa bopp rek. 2019 euh, da nga jël drapeau chef ak équipe waaw. représenté di peser 66 kilos. waaw. même année bi moom moom la doon def année bi. même année moo doon représenté Diourbel 76 kilos. Hmm. muy naataango boo xam ne ci yow ci làmb li ngeen bokk dafa bari. waaw ah. loolu yaa ngi ci bàyyi xel. ah foo teg ko ko teg tànk. ah man comme naa te féete ma teg mu teg fa rek na nangu loolu ba korog. ndax boo si xam naa dégg naa li nga wax kay. benn mu ne si li nga wax mais li nga wax yëpp dëgg la. xam nga comme comme moom mooma mag mooy topp sama ginnaaw surtout maag man xaale bu ndaw. dégg naa li nga wax bu baax de. dafa gëj ci dafa gëj. dafa bëgg a wanewaat boppam. boppam. ok wane ni fii la dëkk man li ma yow li nga wax. sept ah. ok ok li nga wax dëgg la de dégg naa ko bu baax de mais man mi fi dëkk. waaw isaan yi dégg du ma gën a bëgg loolu moom. dégg nga wax ji waaw fii la man. ok xam nga man dama fee toog nekk fi xam nga fii mooy sama base man fii laa xam isaan yi dégg. te dinaa fi dinaa fi dinaa dinaa ko defal dara. demaat ba kees fii. ok man nag laa wax. comme dama koy dalal fii ba mu normal doog a dem kees. kon damay dem kees rek comme bu ma ko dalalee fii xam nga moom tamit bàyyi na fa yenn grand am tamit. waaw ah, ñu waxante dëgg comme moom bu ma ko dalalee ba pare laa wax damay dellu kees man. dégg nga wax ji. xëy na ah. loolu du benn problème. mais ah, moom na bàyyi xel loolu. jërëjëf ok. aca jërëjëf dégg ngeen Robert Ndiaye mu wax ñu dem si doomu Mbour bi doomu Thiès bi te dañu région de Thiès moo ëmb département de mbuur loolu dina saf de <laughs> Père Sidi mi. asalaamaaleykum wa rahmatulahim ginnaaw bi nuyoo waa Sénégal yëpp. waaw di nuyu Père Sidi Diakhaté mi tëgg làmb ji waaw di nuyu sama adversaire Robert Ndiaye di nuyu waa Thiès gi ma jógee waaye ko Samba Diaw yëpp waaw di tamit kontaan si drapeau bi ñu tuddee mooy meilleur maire du Sénégal waaw parce que gis nañ ni mu jàppale suñu yeneen moroom mbëri quoi waaw di wax tamit ne man doom mbuur laa comme moom waaw li mu wax yëpp dégg nañ ko tey drapeau jàmbaar la ñu tëggal te moom mii jàmbaar la Papa Ndiaye tamit kenn waxatu ko moo tax ma xam ne bis daal day wuy borom drapeau magasin dina neex trop waaw di woo maire Mbour nag si Issa Sall mu ak borom drapeau bi Maguette xam mu ñëw jàpp si bu baax a baax ak xam nga monsieur Habib Niang Thiès ñu ngi woo ñëpp ñu ñëw jënd billet ba jeex ñu combat bi moom dina neex waaw ku ne xam na dina neex tey ku gis affiche bi dina xam dara du ko dàq waaw di wax sama adversaire nag maa ngi koy ñaanal jàmm ak wér bis ba waaw bu jour corriger ko incha allah. comme ni ma Père Pamba wax rek fi mu teg tànkam foofu nga teg sa tànk. waaw drapeau nañ mais ñun quatre lañ ñëw mais troisième place lañ ñàkkee. Mm-hmm. waaw. Mm-hmm. ñëw ngeen mais tey jii nii nii yow 85 nga nekk 76 mu nekk Thiès. waaw nekk ñaari doomu Petite Côte. Mm-hmm. tey jii nii gis nañ tamit li muy prouvé si simple yow yaa ngi def. tey bis bi lan lañ si mën a xaar ngeen nekk ñaari bërikat ñaar ñoo xam ne kenn du xaar sa morom. ñaar ñëpp ay demkat lañ. waaw man seeraat naa benn combat moo galas cat. day ñëw quoi te man it sama combat bi si gën a diiree su ma juumul deux minutes la am foo taxaw dama la fay fekk te moom it day ñëw combat bi du yàgg te dina neex. en tout cas daal boo leen caméra bu leen wut foo leen toog bu leen taxaw leen ndax ku mën a tëb di nga tëb ndax di gis gars yi bëre ba naaw si kaw incha allah waaw. mais kii ki nga xam ne opté wu lu dul làmb dem ba Espagne bàyyi fa lépp ñëwaat ngir làmb mm-hmm. Papa Ndiaye am ko ñëw jël ko loolu xoolal fa Espagne bi. waaw ñëpp di xëntee dem. gaal yi nit waaye. mënoon làmb moom moo la fi gën a nekk ndax moom fi lay yeewu nga ñu fekk ko fi bëgg a bëri moom ci dëkk bi loolu ban kii nga fi am. ñun làmb moom xanaa lenn ñu bañ koo ñu bañ see ñu bañ see dox mais buñ ci doxee doo gis kuy takk ngemb mu ne moo ñëpp qualité bëri non non waaw rawatina nag koo xam ne ay maas ngeen da a neexoo waaw Papa Diaw jël def def si sérieux si bëre te làmb bëre la waaw surtout kàttanu yàlla ba bis baa ku yeex doo gis jël maa leen ko wax. bu xeexee mobilisation moom Thiès man maanaam damaa a bëre parce que damaa dem Thiès def fa samay preuve bëre sept combats sept victoire mënatuma am mun la non du ma ko jël. instant yi damay su may dem entraînement sax léegi du ma du ma du ma dawal sama moto oto laay jël ndax sonn. mbër combat yi la ñuy xaar combat yi du Thiès du Mbour si kàttanu yàlla bu yeexee te en dafa nekk sama dëkk maama waaw sama yaay mu ngi bàyyeekoo foofu te instant bi wax na leen ko ñëpp ñu ngi préparé waaw man si dëkk balaay ngeen boobu bu jour ba sama kër maam kon maay mobiliser stade ba mu fees ko maay dalal saa yi mu ñëw ma daan ko insha allah ba pare ñu war ak sama neen day dugg Thiès boole nekk Thiès waaw dëkk maamam moo lay moom moo la fay dal. ah moom si xalaatam la waxee rek xam nga nit ku nekk da ngay wax sa xalaat rek mais dalal Robert yombul de. Ah mhm. ñoom laa liyoon ñi war na xam li may wax. waaw ah ah, moom nag nee na combat am day durer deux minutes man amaana sama combat yi laa liyoon a ngi pour mu caméra ko du yomb. da gis. man ah, xanaa looy gis ngay caméra. ko. amul ko siy gis. Ah, ah. mais moom si deux minutes am la wax. si moom si xam nga moom daa ñëw indi deux deux minutes am teg yaakaar ne. ok comme combat bi gën a gudd deux minutes am la laa man ma ne kat man samay combat pour ñu gis ko yombul. gaaw ah day gaaw sama yenn man dooy gis sama combat dëgg danga may dëpp caméra bi te boo ko dëppee am na yoo xam ne doo ko gis mais kon ñi seetaan moom daa réer mbir rek ba naan ay man mbër mbër muy ñëw la ak ñëw man man yooyu yëpp ñu nekkul sama bopp bi dëgg daal xam naa ne xamal ma koy ñaan Sénégal ah. Ah. Ah. a neex combat bi hmm. loolu moom kenn waxatu ko Sénégal bu ñu ko gisee di ngeen ko xamal seen bopp. man rek déggoo. ah du toogaay bii moo tax may wax de sama affiche ku ko mënti gis di nga xool fan la nekk làmb jooju man ku gis sama affiche laa wax di xool jour làmb ja ak làmb ja fan la am. nga ñëw si carrément man noonu laa mel na tere. man li mode de combat hmm. ñoom ñi kenn diwuma si ñoom ñëpp kenn diwuma si de. Ah. moom mii daa war a am fee daa war a kontaan lu tax mu xaw war a kontaan. Robert Ndiaye ngay bëreel rek loolu loolu lu ëpp lay bës. Ah, bës la yow kii bu nekk Robert Ndiaye ngay bëreel doo kontaan. ah ñu waxal dëgg média yi ñëpp di wax. ku nekk di wax. waaw yow eh. Robert Ndiaye ngay bëreel di di nga kontaan bay bëgg dee. di wër ku la laaj di nga sawar a wax sax Robert Ndiaye laay bëreel. ndax parce que xam nga ki ngay wax nii moom lan la si gox bi. Lalu Robert Ndiaye Papa Ndiaye Onkong moo gën a nekk bës nag waaw parce que ñun tey làmb mbuur dañ say def lu lu garaaw parce que ñun bi ñuy nekk ay di jël ay poids di jël ay poids lissé te foofu ñu ngi ma génn dem Thiès moo tax ñu fi doon tudd benn booy mais bi may nekk Mbour amul sama morom ba ñuy tudd ma tuddaale amul man seul maa doon ñëw fii làmbaam ma bind poids lourd di ko jël wala ma koy finaalu man seul si année boobu amul benn booy bu ñemee ñëw bind poids léger dama doon romb raw gaadu romb poussière ñëw jëlay poids lourd fii si Mbour waaw te xam na affiche bii li mu wax ni ko gis dinga nga ñëw làmb ji làmb ji daal dina neex parce que bi ñu ma waxee kii xam naa ne bërekat la te tey man dama bëgg di bëre ndaanaan waaw maanaam di wan gaay ne li nekk fii nekkul fenn ca bu jour ba insha allahu rabbi di ngeen xam ne carrément li may def maanaam dama koo mën li may def dama koo mën waaw làmb bi dina neex kii sañu maaxe bu àggee bu ñu ko waxee kuy njaay dina yokk lim doon def yëpp waa ñaari gaynde lañ nag gaynde njaay waaw ah vraiment daal lii ñu ni ñu xasante tasasante moom vraiment ku nekk dégg na ko ku nekk xam na ne ay gor ñoo wax ku nekk xam na ay champion ñoo wax ku nekk xam na ne ku ne def nga lu nekk ci làmb fii kon nag euh, defe naa ni ñu wax nii pour la date du 8 janvier 2023 fii ci Mbaling defe naa ni bis booba ku yéex rek doo gis combat bi parce que ñoom ñaar ñi xam ni man ay champion la ñu donc di profité waat ci occasion bi di gërëm suma parrain bi nga xam ne at mu jot daana ma daanañ fi def làmbam muy Cheikh Issa Sall di maire de la commune de Mbour di nit ku baax gis naa ne mi ngi defaraat fi ñuy euh, euh, stade bi te bu pare incha allah làmb yi dina continuer monsieur Maguette Sène woo na ay mbokkam ak xaritam ak am di jàmm yee képp ku nekk tey jii rek ci Malicounda moom it ñu koy félicité di ko gërëm di ko sant bu baax ci li nga xam ni defal nañu ko pour bis bi toll fi ñu toll monsieur le maire Maguette Sène vraiment daal bis boobu di sa drapeau bi ñu war a bëree le 8 janvier fii ci Mbaling ah loolu yaakaar naa ne dina doon bis boo xam ne bis bu am solo la di Diakhaté mi ngi lay gërëmaat di la santaat si di jaxate production ñi ngi lay gërëm di la sant mais surtout di gërëm Chérif moom mi nga xam ni moom mooy président CDG bu Mbour di gërëm tout la presse nag bi nga xam ni ñoo nekk fii tamit à Mbour chaque fois bu ñu fi ñëwee ñu jàpp ci làmb ji ba promotion bi egg fi mu war a egg kooku dañuy teg remerciement boobu ci loxo suñu jigéen bii nga xam ne mooy la Lionne te ku nekk xam ko fu nekk mu fay dem di làmb parce que moom du tricher ci liggéeyam ñu koy félicité bu baax moom it daal président kon nag kàddu gu mujj gi yow lañ koy jox nga tëj mu jeex ñu soog a kii ah merci Sidi wax ji kat presque tëju na parce que li ñu def rek mooy di gërëm aussi ñun suñu manager yi nekk fii ci département de Mbour ndax saa boo leen soxlaa ku ci nekk dana bàyyi yitteem yëpp pour doxal les combats yombalal la koy tamit ci ni nga xamante ni moom la gënee. ndax ñun tamit amuñu lu dul làmb di gërëm aussi suñu comité CDG bi parce que dépp saa soxlaa koo ci woo rek def na sa bés yitteem te loolu rek nag moom mooy kii ndax ñun bu làmb amulee presque ñun amuñu njëriñ ci il faut que ñu làmb am pour ñu mun ñu xam kon nag ñun buñ sañoon bés bu nekk làmb am mbuur bon di lancer appel tamit euh, monsieur le maire ci euh, arène bi xam naa ni moom ci la nekk fi mu nekk nii waaye nag euh, làbbali fas taxul fas fas nga ci kanam waaye daal ñu ngi koy ñaan daal vraiment ñu seet fan la ñu mën a dimbalee pour euh, faciliter ñuy tamit ñi nga xam bëgg nañ tëgg làmb lool parce que promoteur ñu ngi taxaw bëgg a tëgg làmb mbuur mais fii ñu daaneel rek mooy suñu problème pour le moment kooku ne dañu lancé waale appel ci biir kii bi vraiment si di itam loo ci mën a taxaw ci autorité yi di nga dimbali ñu taxaw ci loolu jërë ngeen jëf ngeen ñëpp asalaam. C'est bon.